ñaan yàlla ci àdduna bi yëpp lépp nekk yiw ci réew mi bisu tey nag bisu sant sunu boroom la takbiir la allahu akbar bu bari la ñëpp war a saxoo ndax bis bi bis bu màgg la ci ñun ñi ñuy wooye ay jullit bis bu màgg la ci àdduna bis bu màgg la ci suñu borom bis bu màgg la ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa message bi yonent bi daan lancé muy message yu jàmm ci àdduna bi. ci doomu suñu mbàkk yi seen taalibe ñu jëm dem seeti nit ñi loo jarul xeex maa ngi tuuba jëmale réew mi moo tax waxoon ne ñëpp nañu nekk ci dal loolee la ñëpp war a taxaw le 31 juillet ki war a am ndam am ko yàlla moom moo koy may moom kese moo quranu karim qulillahuma malikal mulki tuxtil mulka man tasha wa tanziul mulka mimman tasha wa tuxizu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika alxayr innaka ala kulli cheyin xadir loolu mooy lii am solo ci ñun ñii ci suñu ay jëmm ci réew mi